xaadim taa ngi ni toog laay la sama xarit bi aba noo def dama laa namu yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmmo yow xaadim taa waaw yi nga takk ni maa la ko may bu weesoo verre yi dama laa bëgg a yónni ca boucherie sunu viande ab géwal nga te géwal day bëgg yàpp ma nga ca rond point Scat Urbam ba Euh, pour nga dem fa da ngay def 77 wooteel ci 424 euh, en direct nii nga toog. 424 74 74. 74 74. nee leen. waaw abaa nee na. abaa nee na. ma ñëw fa. ma ñëw fa. am naa fa 5 kilos yàpp. am naa fa 5 kilos yàpp. yóbbu ngéwal jox ko ami jéem ak ko ragal ragal xaalim tax ma bàyyi la nga nuyoonte ak àdduna. waaw abaa maa ngi nuyu Sénégal di nuyu mm. àdduna di la di leen nuyu nag yow bu baax. Mm-hmm. di nuyu Famara. di nuyu waa TFM gépp nga mhm. xam dañ may dooleel di ma jàppale mhm. Kourma noonu moom it mu nekk ku baax mhm. di nuyu Bas sama manager ànd ak Mbackeloo Star di nuyu banlieue bi yëpp nag banlieue bi waaw fan yi passé nag ci ginnaaw sama benn rakk sama frère Khadim Sow dese bi nga déggoon Maroc. moom la mu wàcc. ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla mm-hmm. xare ko àjjana te yéexinu ko. di di baal ñëpp àq. di baalu ñëpp àq. Mm. Mm. waaw di bëggee ñëpp. damaa yokk sa sànce bi dama laa fekk nga sol tout mm. di nuyu yaayu Serigne Saliou. balaa di nuyu yaayu Serigne Saliou. yaayu Serigne Saliou ami Jembe. ami Jembe di nuyu sama yaay sama jabare ci <laughs> kër ga. Xaadim euh, ba balaa ngay ñëw ci ñi nga xam ne ñooy jëlee. da nga fee wala dikkalekat yi waaw waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy dikkale euh, da nga fee moom nag euh, pour ngeen pour pour pour que mu bañ leen a bett moom lu ko neex lay way pour mu waa waa mu bañ a bett da nga fee wayoon benn wayu fort réew mi bëgg ko mën nga ci acapella tuuti avant nga ci kaw seen bi. muy ami jéem be lu mu majaaral. xanaa. ak <laughs> eh, yéen a wax de. da ngeen aw xoolal eh, eh, da ko. abaa dama koy wax ci joolaa. waaw xoolal ami jéem be lu mu majaaral. xanaa ukkati paa moo ne. ukkati nge. wuy ñu mbaax ñu ayca tàccu leen xarim tam bu baax a baax a baax. mu yéeg ca kaw seen ba ak ñi nga xam ne ñooy dikkale taar kàlla yàlla na jàmm yàgg ku ci nekk rek ka nga xam ni moo la jaral da ngay tax nga bàyyi yaay bàyyi bàyyi te heure bu ko soxlaa nga toggal ko añ mu lekk ba suur waaw acca dikkale c'est pas bon monsieur le jippo dikkale c'est pas bon jikko ji aba xanaa kii du moom soppee bu jikko daa fa daas kii kay daa fa daas xusi taw bi dox ci naaj bi jaral naa la ba foota tolloon nga ci ay ay tolloon nga ci yow it jaral naa la doon bu la deful dara ngir bëgg maa gis ma bëgg maa gis ey jaral naa la jooy buñ la tere nga ñëw tolloon nga ci ay ay tolloon nga ci ba tax na dama lay woo dooma jot dem seen kër dooma gis ne Moussa Ngom yow damay daw yónni kenn fay dooma gis WhatsApp sax yow sa jikko e booy merci rek lu tax yow it doy na yow merci ndax da nga am noo mel ba tey eh merci rek fëlaale sa di ji Sëriñ Saaliw fëlaale yaay borom naa si eh, neel ak est-ce tamit du ma mujjee gaañu naak naak naak ginnaaw da nga baax maa ngi ñëw ma si jeng rek yaay sama def rek nga dogal ma ceebu jën ami kan ak Fanta li mu naan sax man damay naan ba bokk naan. jéem a dama la waxal lu baax minute yaa siri daa sey borom Amérique yaa ka jama teral Tafa Diagne naar bu muy dugg Anta Dabay yaayu Amadou bu muy dugg Mabou Ablaye Sall Ngari bu muy dugg mu dugg yow pas na ñëw na di daal jëli suñu jabar ndax ñëw na Assane Mbaye Doudou Gueye Cheikh Anta Aïe Aïe Khadim Temps merci beaucoup mon frère kontaan naa bu baax yaa moomaale boobu sàkk mën nga koo yóbbu bu la neexee yow maa la serse ba mu neex ma ma roof la eme waaw jële ko këram indi ko sama kër waa du fiy dugg waaw fu bagage yi dugg non verre yi fu muy dugg <laughs> merci beaucoup Khadim Temps